donc ndaje bu am solo la yaay mooy inspecteur académie euh, nekk seize nekk ci région différentes régions yi euh, am tamit 59 euh, IF maanaam ay inspecteurs d'éducation ak formation yu jóge ci département yi euh, ñëw nañu waxtaan ak ñun si bi mooy suñu ndaje bu njëkk euh, ndaje boo xam ni permettre na ma mu déglu leen comprendre lan moo nekk seen i jàngoro lan la ñu war a saafara y a une priorité yan mo nek urgence yan une nek tamit sen sen ndam parce que euh, éducation tamit euh, Sénégal euh, a na yu bëri yo xamni machallah jot nañ ko réussir ma ci profiter tamit pour jaajëfal leen parce que les yu doy waar la def metti tamit dans des conditions très très difficiles wante ñu ngi fi ak ngor avec dignité di accompagner avec patriotisme di accompagner donc suñu doom di accompagner nation petit effort d'éducation pour le MEDEF. Euh, aussi l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale de partager l'idée qui ce qui se baisse. Nous avons transformé notre éducation. Nous avons besoin de baisser le chaos, nous avons besoin de baisser l'union, de faire un peu de Sénégalais, nous avons fait besoin qui pas éducation, l'éducation, euh, nous avons besoin d'éducation.

mu nekk daje bu am solo mu am ay axes yoo xam ne tamit euh, dégagé nañ ko axes yoo xam ne ci financement bi nag lañ ko war a xalaatee euh, parce que financement yi dafa mécanisme yu bees euh, état rek su dee dañ koy xaar ci lépp dina yéex ci transformation boo xam ne soxla nañ ko wax nañ tamit ci enseignants yi nag lañ leen war a revaloriser pour ñu gis seen bopp léegi pas ñoom seen jëmm bopp sax mais secteur bi moo ko laaj dafa am loo xam ne soo ne lii nga bëgg ci transformation systémique ni askan bi ni nga bëgg mu mel ñi yor éducation boobu forcément il faut nga euh, former leen ci loolu donc ak nga valoriser leen te enseignants yi tamit ak IA yi ak IEF yi souligner ñuy difficulté yi ñu am da ngay gis koo xam ni sur 100 euh, enseignants yi mu am ci goxam euh, presque lu ëpp moitié bi dañuy daw gox boobu ndaxte amuñu infrastructure ndaxte conditions yi

nous avons ci affaire euh, politique qualité wax nañu tamit ci excellence inclusive ak yeneen yoo xam ni euh, en relation avec la nouvelle vision de l'éducation nationale